وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأقرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم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 ñu ngi woon ba tey ci abwaabu taqsiiri salaa wal jaami saxiix bu amirul muminina abu abdullah muhammad ibnu ismail al buxaari alayhi raxmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabun salaatu tatawwu alal ximaar bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci julli coobarewu ci kaw mbaam gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayidna anas radiallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la doon julli moom yusalli ala ala ala ximaarin wajhuhu min zal min zal janib yaani an yasaaril qibla ne moom daf doon julli ci kaw mbaam boo xamante ne xar kanamam mi ngi jublu ci wàll gii maanaam moom mooy càmmooñu qibla bi nga xamante ne moom lañ ko laaj ni nga xamante ne nga def loolu lu ko waral mu ne lawlaa anni raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faalahu lam afal budul woon li ma gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam def ko kon doon mu ko woon def gisoon nañ tamit xay baabu man lam yatatawwa fi safari dubura sola maanaam bunt nga xamante ne moom moo dul coobarewu ti naafila ci tukki ci tukki gi maanaam ginnaaw julli yi gisoon nañ ci xadis sayidna abdullah ibnu omar radiallahu taala anhuma li nga xamante ne moom lay wax ne yenente bi saxibtu nabia sallallahu alayhi wa sallam falam arahu yusabixu fi safar gis naa ànd nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te gis ma ko muy daal di julli julli naafila ci ci tukki gi bu pare daal di wax ne buur yàlla subhaanahu wa taala moom moo wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana deug deug nek na ci jëm ñu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam roykaay kay bu rafet naka non gisoon nañ ci jëmmi hadith hadith boobu li nga xamne mom la ci yok manam ci benen riwaya bu mu ne sahibtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa kana la yazilu fi safar ala rak'atayn wa aba bakar wa umar wa uthman radiyallahu anhum manam génn kaza wa uthman kaza radiyallahu anhum maanaam ne ànd naa ak ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam te daanu doon yokk ci jul ci tukki maanaam loo ñaari rakka naka noonu seydna abubakar seydna umar seydna usman naka noonu tamit ñoom ñëpp radiallahu anhum waaye ñu gis bunt boo xamante ne dafay leeral ne loolu nag bu fekkente ne laataa ñuy julli la aaya wala bokk maanaam yeneen xeetu naafila yi rek loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa doon na ko def mu ne baabu man tatawaa fi safarin fii xayri duburi salawaati maanaam du xayri duburi salawaati wa qablaha maanaam mu ne ma baabu buntu man ki nga xam maanaam buntu ki nga xamante ne dafay coobarewu ci tukki ci lu bokkul ak ginnaaw julli ak li ko jiitu maanaam lool nag mu wax ne wa raka annabi sallallahu alayhi wa sallam rakaatayil fajri fi fi safar bi sallallahu alayhi wa sallam julli na ñaari rakkay fajar yi ci tukki te loolu laataa julli gi la beneen mu indi xadis sayyidatuna ummu haani bi radiyallahu anha bi nga xamante ne moom lay wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yowmu fatxi makka irtasala fi baytiha bi sallallahu alayhi wa sallam fatxu makka dafa sangu càngaayal farata waaye ba pare daal di julli juróom ñetti rakka maanaam loolu muy rakka yoor yoori <coughs> kon <coughs> loolu nekkul kon ci ginnaaw julli yi ما نك نانو نل إن حديث سيدنا عامر من ربيع رضي الله تعالى عنه من أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به نمم جسنا نار يالله صلى الله عليه وسلم مجلي ما نم نافلي قدي تشيفك مغنيك تتوكي ما نم وارتكو ورواي مي قليمم fa nga xamante ne mu daal di jublu fi nga xamante ne foofu la jublu la gëléem gi jublu naka noonu xadis sayidna abdullah ibn omar bi nga xamante ne ci boobu maanaa la nekke maanaam mu teg ci ne wa kaana wajhu yumi ubi rasi mu ne xaytu kaana wajhahu yumi ubi maanaam fi nga xamante ne foofu la daan nekk rek mooy fépp fi nga xamante ne foofu la jëm xarkan moom daan féete waaye boppam la daan ju junjee maanaam ngir wane ne mi ngi rukkoo naka noonu mi ngi sujjóot mu tekki ne wa kaana ibnu Umar yafalu te Seydina Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhuma ginnaaw bi mu nettalee ne yenent bi sallallahu alayhi wa noonu la daan def moom itam noonu la daan def mm. ñu gisoon tamit ci suñu jotaay yu weesu ñu baabul jama safari baynal maghrib wal isha bunt bi nga xamante ne moom mooy wax boole gi ñuy boole ci tukki ci diggante timis ak gée maanaam di ci leeral masala yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loolu bokk na ci masala yi nga xam ne moom lañ ci gisoon mooy wuute yi maanaam moom mooy ñetti xeetu jamo yi nga xam ne ñoom ñoo am te mooy jamo taqdim jamo taxiir ak jamo suur yi gisoon nañ ci tamit ne boroom xam yi dëppoo nañ ci jamo bi nga xamante ne moom mooy taqdim ca ca Arafa ak jamo tax jamo taxiir ci Musdalifa loolu tamit gisoon nañ ko naka noon gisoon nañ ne xanafi yi ñoom dañoo bañ jamo maanaam ci leneen lu bokk te ci ñaar yooyu ngir ne jam yooyu jam nusuk la gisoon nañ ne maaliki rahmatullah alayhim ñoom dëppoo nañ ci ne ju jam boobu def na ko def waaye ci charte ñu nekk ci biir tukki gi ci maanaam bu dee ci bi tukki gi la ñoom nangu nañ ko ci yoon bi waaye duñ ko nangu bu ñu xësee ba yegg fa ñu jëm beneen mbir bi nga xamante ne maanaam li jara bat mata bàyyi xel nag mooy fii lënt-lënt bi mën a indi moom mooy nit ki xalaat ne xanaa waxuñu woon ne dañuy wàññi julli suñu tukkee ba pare indi ay distance ak yu mel noonu li nga xamante ne moom moo mat a bàyyi xel fii moom mooy ne ja boole julli gi benn masala la wàññi julli gi nekk beneen masala maanaam ñaari masala yoo xamante ne dañoo wuute maanaam nit ñi dañuy am tendance benn mbir mi la fekk nag déedéet li nga xamante ne d'ailleurs moom mooy yi nga xamante ne moom la ñu euh, wuutee moom mooy ne masalan Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom jàpp ñu ne tukki bi pour ñu mën a boole jarul tukki bi nekk tukki bu sori maanaam tukki bi même bu tuuti dañ koy mën a def loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ñoom ñoo dëkk Makka masalan suñ ñëwee ba Musdalifa ñu mën a wàññi seen jul ñu mën a boole julli gi niki noonu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk euh, fi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam buñ ñu demee Arafat tamit ñu mën a wàññi seen julli amaa ñi nga xamante ne nag ñoom ci fuqaha yi dañoo jàpp ne jamono boobu jamono nusuk la loolu duñ ci am problème te boobaa maanaam loolu moom moo tax jam aw gi mën a ne maanaam kon maanaam boole gi loolu moom moo tax teqantal boobu mat naa bàyyi xel ci diggante boole gi ak wàññi gi ñoom ñaari masala yoo xam ne bokkuñu maanaam doo dëgg la nag li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam comme wàññi gi ñoom daanaka dañ cee ànd maanaam loolu moom moo tax maanaam wàññi gi moom amul luñ ciy sikki sàkk bu dee tukki gi dafa gudd loolu moom moo tax nga mën a wàññi boole maanaam loolu moom mooy tax ñu man koo def deneen bi ci des tamit moom mooy boole julli yi donc moom boo wàññi julli bokkuñu dara maanaam bokkuñu dara dañuy tase rek léeg-léeg mais bokkuñu dara maanaam loolu <coughs> lu mat a bàyyi xel <coughs> beneen mbir bi nga xamante ne tamit mat naa bàyyi xel ci biir wàllu wàllu googu noonu moom mooy ne masalan li nga xamante ne dañoo feebar loolu moom moo tax du duñu mën a wàññi julli ndax wàññi julli tukki moo koy waral mais ki feebar mënta wàññi julli li mu mën mom moy boole julli su dee ci maaliki jam suuri la mëna def bu fekkente ne ci Shaafi'i du ko def manam ci lay rahmatullahi alayhi mom ci la koy mëna def manam bu boba da la ko def bu ko neex mais nak jamu taqdim manam mo gën ci loolu ke jamu taxiir waaye su fekkente ne jamu taxiir la def tamit bax na ci xana lay rahmatullahi alayhi amma ñi nga xamante ne ñoy ñooy Hanafi yi waxoon nañ la ko ñoom jamu mënta nekk luddul ci ñaari cadre figure yi nga xamne mom lañ la wax mooy Musdalifa ak Arafa jeex na takk ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy euh, yeneen euh, euh, maanaam bu fekkente ne dañoo tukki wala boog mu nekk loo xamante ne maanaam dafa taw maanaam taw boo xamante ne dafa foor bu fekkente ne ci Maaliki la rahmatullah alayhim ñoom dañ ne jamoo bi mën na nekk waaye su fekkente ne guddi gi la maanaam bu bare ba bare ci heure timis gi lañ koy def lu tax ngir ne buñ ko bàyyee ba gee jot ñu bëgg koo def amana na mu fekk taw bi arrêté problème manam la taxone ñu waron ko mën def daal di yëkkatiku te du dagan ñu yéexi julli manam wëllif waxtu wi lool tamit mom moy benen bi ci dess benen bi nga xamantene mom moy te lool tamit shafi ak xanaa bi lay rahmatullah dañ leen cee fekk benen bi nga xamantene tamit mom moy li nga xamne mom nangu man nañ ko wàññi manam manam mën tax ñu boole julli mom moy nit ki nekk ci maam xawf salaatul xawfi tamit dañ koy boole beneen bi nga xamante ne tamit moom ñoom dañ koy boole moom mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim maanaam danañ ko boole moom mooy bu fekkente ne nit surtout no xanaabila plutôt rahmatullah alayhim moom mooy su fekkente ne nit ki dafa nekk ku ragal alalam yàqu wala maanaam mu nekk loo xam ñoo looloo xaw fu ñoo yam maanaam nga xam ne mën naa def jam o taqdim wala boog jamu euh, jamu taaxir wala boog jamu suuri loolu moom mooy comme masalan koo xam ne daa nekk ci liggéey wala yu mel noonu waaye ki nga xamante ne maanaam tey ragal ni bu bàyyee loolu liggéey bi dana yàqu maanaam waaye nag ki nga xamante ne euh, moom mooy ki toog noonu rek amul lenn lu war a mën a tax maanaam mu daal di euh, euh, bañ a loolu moom ñeenti ngir yëpp dañ koy bañ waaye am na ñenn ci borom xam-xam ñu ko nangu ku mel ne waaye te ñu mu bañ a nekk lu nuy def tout le temps te ñooñu moom mooy ñu mel ne ñoom ashab ñoom ñu mel ne ñoom. ibnu wahb ak ñu mel ne seydna amar ibn abdas ku mel ne moom alqafal ak ñeneen rahmatullah alayhim am na ak yenn maanaam yii nga xamante ne yii daal globalement ñoom ñooy tax nit ki boole julli maanaam waaye nag dafa am ay charte tamit chart yi moom mooy mu ñu bokk na ci mooy nit ki yéene ko masalan tey buy kàbbar di julli tisbaar mu yéene waale ne damay boole tisbaar ak takusaan waaye mënta julli tisbaar seulement daal ne teema boole maanaam mbër mënta demee noonu beneen bi ci tamit moom mooy su fekkente ne dafay julli Euh, fokk mu euh, bu dee maanaam bu fekkente ne dafay def jam u fokk mu yéene ko fekk tisbaar jot na masalan tey mënta ne damay def jam u fekk bi tisbaar jotee xam nga ne tisbaar jot na waaye yéenewul ne jam u taaxiir laa fas yéene def lu tax ndax bu boobaa day am bàkkaaru ku yéexee julli wëllif waxtu wi maanaam ak yu noonu maanaam kon <coughs> ak tamit yenn yi nga xamante ne ci condition yi ñu jot a tudd la bu dee day taw ak yu noonu amma ñi nga xam ne ñooy Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom bu dee taw mën nañ koo def euh, maanaam ci bëccëg gi maanaam bëccëg gi mën nañoo boole ngir taw te bu dañuy ñoom ak xanaa bi lay rahmatullah dañuy xiyaas ci taw boobu lépp loo xamante ne moom mooy nees bu tarak wala yu mel noonu verglas am wala mel noonu te bu boobaa tamit faaw euh, bu fekkente ne rawatina Maliki la rahmatullah alayhim dañ ciy sartal imam bi Eh, maanaam foog imam bi def ko maanaam bu dee imam bi moom rek waaye tey ki nga xamante ne masalan eh, moom rek moo fi nekk te du imam kooku ci jàkka ji la ne eh, wala boog mu nekk ku dëkk ci wetu jàkka ji kooku du ko man maanaam foog imam bi moom moo koy def beneen ak ak yu noonu maanaam daal am na ay mais mais kon dañu gis ni boole de toute façon dafa am rek maanaam tar-tar moo koy waral ak coono ak xat-xat loolu nag la ñuy gëndale rek kenn ku ci nekk ak ni nga gisee mbir mi ak ni nga ko jàppee selon ni nga xam ne noonu la rote comme par exemple fuqaha u maliki ci rahmatullah alayhim ñoom ci tukki nangu nanu ku boole waaye bu dee tukki gi yoonu géej la masalan du ñu nangu ko boole ngir ne rotul waaye loolu da ngay gis ne euh, dese naa nekk lu dëgër ngir ne tukki jéeri ak tukki géej amul lu leen wutale maanaam loolu tamit euh, wallahu aalam gisoon nañ ci xadis yi nga xamante ne moom mooy xadis naa ibnu omar radiallahu taala anhuma bi nga xamante ne dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu tukki gi maam isa jadda bihi sayru su fekkente ne tukki bi dafa nekk loo xam dafa na dafa dafa dafa dafa nekk ci tukki dëgg dëgg tukki maanaam bu boobaa day boole yajmaa bayna al-maghrib wal isha danoon boole diggante timis ak gée ak xarit seydna abdullah ibn abbas bi radiallahu anhuma yoo xamante ne dafa wax ne daf doon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ida kaana ala zahri sayrin maanaam su nekkee ci digg tukki ci kaw tukki bu boobaa dafay daal di boole diggante tisbaar ak tàkkusaan naka noonu day boole diggante timis ak gee naka noonu xadis sayyidina anas ibnu malik bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne dafay wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na boole diggante timis ak gee ci tukki yii yëpp ay xadis la yoo xamante ne dafay tegtale loolu léegi mu ne baabun هل يؤذن أن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء باب بنتيني هل يؤذن ندخ دنا نورد أو يقيم ولا ملقام موم ادي توكي إذا جمع بو فكنتنا لا بين المغرب ديغنت تيمسكي والعشاء اك جيغي مانام مساله بي لي امام البخاري رحمه الله تعالى انديكو اندك موي خمغي ني خمني جولي بو نيك دا فا نيك لو خمني بوك نا سي لي نتي يونال léegi nag ak liqaam li nga xamante ne nag moom mooy laaj bi bu fekkente ne dañuy boole ndax loola kon dana ko matati ndax dana ko jarati loolu nag imam al Buxaari rahimahullahu taala hadis yi nga xamante ne moom la indi <coughs> maanaam tegtalewu ko ci anam gu leer waaye daañ ci wax buñ ci yegsee insha allahu taala li nga xamante ne <coughs> amaan na ci loolu la ko jële waaye li nga xamante ne moom mooy jëmmi masala bi moom mooy ne maanaam euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp dëppoo nañu ci ni nga xamante ne mooy ne dañuy noddal julli gu njëkk gi maanaam loolu moom daal ko noddal ngir ne julli gi maanaam yoonal gi ñu yoonal ko ko noddal waaye comme que bu ñuy boole diggante rakka bu njëkk bi ak rakka maanaam julli gu njëkk gi ak julli gu mujj gi warul am <coughs> lu bëri trop lu leen tàqale loolu moom moo tax masala bi day daal di nekk lu la lu lu lu lu lu lu ràññeeku waaye li nga xamante ne moom lañu ko natte moom mooy al urfu loolu la ko jumhur ma natte rahmatullah alayhim maanaam moom mooy euh, ne euh, rek amul loo xamante ne maanaam mooy ne dañ naan rek bu mu yàgg maanaam bu mu yàgg gi nag amul loo xamante ne dañ naan nangami minute la mais ci urfu la rek maanaam nit ki mooy toog gis ne lii kat mi ngi waaj a yàgg wala lii yàggul selon maanaam ni muy doxee ay soxlaam nan la dëkk bi mel nan la ki maanaam ci loolu rek lañ koy natte beneen bi ci des tamit moom mooy am na ci nag borom koo xam yoo xam ne rahmatullahi alayhim ñoom natt nañ ko ci ay mbir yu gën a woyof maanaam moom mooy masalan Euh, nit ki bu sëlmalee diggante bi nga xamante ne masalan ci la mën a liqaamaate wala boog ci la mën a demee jàpp juwaat dellu siwaat wala boog ak yu mel noonu maa dem sangu juwaat sangaayul farata du aay tamit bu fekkente ne dañoo dem dafa am fu mu waroon a dem teg fa ay bagage am dellu siwaat comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci xadiis yi bi ñu tollee ci kitaabul iman ci euh, maanaam ni nga xam ne noonu la demee woon ca Musdalifa nga xam ne ne sahaaba yi radiyallahu dañoo ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu julli tisbaar ñu julli timis ba noppi ñu daal di dem takk ji seen ay gëléem daal di doog a dellu si maanaam ñu daal di julli maanaam nga gis ne loolu kon du rek ne seulement ne salaamaaleykum eh gars yi nañ gaawaat julli gaaw balaa léegi balaa balaa waxtu rek da dem dañu war a boole dañu war boole. maanaam du demee noonu maanaam li nga xamante ne noonu lay demee tamit maanaam moom mooy ah voilà waaye nag charte waaye nag mu bañ a tamit yàgg lool ba nga xamante ne maanaam yow ci sa jëmmi bopp wala boog ku lay gis day ne kii dafay boole ñaari julli mi maanaam du ko xaw a gëm maanaam loolu tamit du du noonu tamit lañu war a doxale loolu tamit moom mooy li nga xam ne eh, lu mat a bàyyi xel la ci biir eh, wàllu boole gi te loolu dafa bokk ci charte yi itam maanaam charte boole daf ciy bokk moom mooy ñu ñaari julli yi bañ a nekk loo xam ne dañuy tàqalikoo lool beneen kon loolu euh, moo tax waaye léegi kon li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yëpp dëppoo rahmatullah alayhim mooy ne nodd gi dana am maanaam dañuy nodd waaye nag ndax nodd bu ñu noddee julli masalan tisbaar est-ce que dañuy noddaat julli tàkkusaan li nga xam ne mooy jumhurul ulama maanaam mooy fuqaaw xanafiyye ak shaafi'iyye ak xanaabila rahmatullah alayhim ndax lenn ci maaliki rahimahumullah dañoo wax ne déedéet du ñu nodd waaye li gën a siiw ci maaliki rahmatullah alayhim mooy ne dañuy noddaat geneen nodd waaye amaan na li gën a wér moom mooy ne dañuy dañuy liqaamaat kese du ñu noddaat maanaam mooy bu ñu taxawalee jul nodd ba ba noppi maanaam ngir julli bu ñuy boole bu njëkk bi rek lañuy ñuy noddal waaye du ñu noddaat ngir ñaareel bi ngir ne boole gi comme dañ koy defaloo ci ñu waxtu wi maanaam du jar ñuy noddaat waaye dañuy liqaamaat loolu moom mooy ni nga xamante ne noonu la ñuy doxale mu daal di joxe ci exemple diggante timis ak gee ngir ni nga xamante ne moom loolu la xadis yi rotee maanaam xadis yi mu indi waaye loolu mooy jëmmili li atte woo ci bu fekkente ne dañuy julli tisbaar ak tàkkusaan mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaabi lay xaddasanaa abul yamaan te mu maal moom alxakam ibnu naafi albahraani rahimahullahu taala mu ne qaala axbaranaa shuayb te mom moy ibnu dinar al khamsi mun ne an Zuhri mu ibnu Muslim Muhammad ibn Muslim ibnu az-Zuhri no qala akhbarani Salim ibn abd Abdullah ibnu Umar ibn khattab an abd allah ibn Umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu raaytu gisna rasul allah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam idha ajalahu su yàkkamtee ku ko yàkkamtee loo sayru tukki gi fi safari man dem gi daw gi fi safari ci tukki gi yu axiru day salat al maghrib julli tisba julli timis xattaa ba yegg ma mu daal di boole bay na diggante moo bay na ishaay ak géegi qaala Salim maanaam ibn Abdullah ibn Umar ibn Xattaab radiyallahu anhuma maanaam kon lii day wane ne maanaam kon ne tisba timis gi euh, euh, maanaam <coughs> mooy ne boole mën naa nekk kon nga def ko boo génnee wuuteeg li Maaliki yi wax rahmatullahi alayhi maanaam lii day tegtale ne li nga xamante ne moom mooy li jumhur wax loolu mooy li wér mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Shaafi'i ak xanaa bi lay rahmatullah alayhim maanaam moom mooy ne bu fekkente ne timis fekk na la fi maanaam teg fekk na la ci dëkk bi mën ngaa génn dem maanaam euh, euh, julli ji boole timis bi ak gee bi maanaam loolu la lay beneen te boo mën nga koo def jamoo taqdim euh, beneen bi ci maanaam beneen bi ci des moom mooy ne tamit loolu day dëgëral ni li maanaam kon ni jamoo dim ak jamoo taxiir yépp mën naa nekk te loolu duñ ci sartal ne faw daf la wara fekk ci maanaam da la wara fekk ngay tukki di dem loolu tamit da koy tektale manam kon day dëgëral mazhabu shafi'i ak Hanaabila rahmatullahi alayhim manam mu ne nag qaala Saalim mooy ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mo kan nek na Abdullah ibn Umar radiyallahu Abdullah mooy ibn Umar ibn khattab radiyallahu anhu ma yaf'aluhu daan nako def ida ajalahu sudan yakamtu su ko don yakamtu la as-sayru tukki gi wayuqimu yuqiimu daan taxawal ma al-maghriba maanaam jullit ti timis gi fa yusalliha mu daat koy julli salaasan ñetti yoon maanaam lii nga xamante ne nag moom mooy baatu wayu qiimu maanaam mu daal di taxawal daan ci ñëwaat léegi maanaam kon julli timis gi mu def ko ñetti rakka summa <coughs> lool day tegte dana julli timis kenn du ko wàññi ci julli ci ci tukki way summa topp yu sallimu mu daal di sëlmal summa topp xallama ak néew li nga xam ne yalbas moom lay sax xatta mbéte yuqiimu mu daal di taxaw al taxawal al isha ak gee fa yusalliha mu daal koy julli raka tey ni ñaari raka lii day tegtale kon lii ñaari maanaam moo ci maanaam maanaam bu njëkk bi moom mooy ne kon dañ yuqiimu fii li muy tekki mooy ñu taxawal ko maanaam ñu liqaamal ko bu boobaa li nga xamante ne kon loolu lay tegtale mooy ne dañ leen di liqaamal ñoom ñaar ñëpp waaye comme que yeneen xadis yi tegtale nañ ne danañ noddu maanaam kon comme xadis Seydina Imran ibn Husayn bi ay yeneen xadis yi radiallahu anhum loolo moom Seydina xadis Seydina Abu Qatada bi radiallahu anhu ak bu Seydina Abu Hurayra bi maanaam day tegtale dañuy noddu te it muy tegtale li yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam mooy xadis Seydina Abdullah euh, euh, Abu euh, bi radiallahu anhu bi naan inni ra'aytuka تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو في في باديتك فأقمت فأقمت الصلاة فلتؤذن فإنه لا يسمع مدى صوتك مدر ولا وبر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة maanaam ne ko gis naa ni nga bëggee maanaam dem ci àll bi ak di dem ci <coughs> maanaam آه، ak ci sa nekk ci sa jur yëg yooyu kon nag آه، آه، bu fekkente ne Euh, yegg si nga ba foofa nga dégg nodd maanaam heure julli jot maanaam na nga daal di nodd maanaam euh, ngir ni amul lenn lu lay dégg boo loo xamante ne maanaam xeer geeg euh, gàncax geeg maanaam li nga xamante ne tamit maanaam garab yeeg yëpp amul dara lu la ci dégg lu dul dana la seedal yowmal xiyaamati loolu day tegtale ne kon nit ki bu nekkee ci àll bi maanaam te loolu ci tukki la gën a mën a nekke maanaam itam day daal di nodd te gisoon nañ ne nodd xattaa yow rek yaay julli sax da ngay daal di nodd loolu kon ci boobaa dañuy daal di gis ne maanaam wax jooju kon dañ ko caa xasafaale bu boobaa nga gis ne dañuy liqaam waaye nag ngir julli gu jot waaye nodd gi moom benn yoon rek lañ koy def waaye tamit amaan na maanaam lii maaliki rahmatullahi alayhim mën nañ ci sukkandikoo ngir wax ne maanaam dadaan taxawal timis gi naka noonu mu daal di taxawal gée gi lu muy ti mu ne bu boobaa mooy comme masalan euh, taxawal gi taxawal julli maanaam moom mooy mu ànd ak charte yeeg ànd ak sunna yi ànd ak ngëneel yi ànd lépp maanaam loolu la ñuy wax taxawal julli te noddu ci la bokk ak liqaam maanaam bu boobaa mu daal di nekk loo xamante ne tamit day daal di tegtale seen mazhab waaye li amaan na li gën a wér mooy li nga xamante ne moom mooy mazhabu jumhurul ulama rahmahum rahimahumullah te moom mooy ne noddu gi rek benn loolu lañ koy def ngir ne jarul ñu koy répété ngir ne noddu ngir yëgle ne ñi ngi julli na te comme ngir yëgle ne ñi ngi julli la te liqaam bi maanaam eh, te maanaam ne eh, eh, eh, kon loolu maanaam du jar luy woote waat segam dañuy boole kese mm-hmm. maanaam kon loolu lay tekki wallahu alam maanaam mu daal di kon nag fa yusalliha mu daal koy jullee rakatay na ñaari rakaa maanaam kon loolu mooy tegtale ne maanaam wàññi gi ak boole gi mën nañoo ànd loolu tamit la xadis bi di tegtale summa topp yu mu moom la daan sëlm mu daal di sëlmal wala yu sabbixu te daanul naafila baynahuma seen diggante maanaam daanul julli julli naafila bi rakaatin ci benn rakka maanaam wala baadal isha yi du caageen ci ginnaaw isha gee bi sajdatin ci sujjóot maanaam mooy julli xatta mbete yàquwuma mu daal di taxaw min jëw fi layli ci xaaju guddi gi maanaam kon loolu day tegtale tamit ne bu fekkente ne dañuy boole dañuy boole julli maanaam du ñu naafile ci diggante bi doonte naafile ci diggante bi du yàq boole gi waaye nag nekkut li nga xamante ne moom mooy li gën loolu tamit loolu lay tegtale beneen bi ci des moom mooy naafile ci tukki mën naa nekk comme ñu ko gisee nii ne bu maanaam li nga xamante ne moom mooy comme ñaari bunt yi nga xam ne weesu woon nañ ko ci <coughs> jotaay bi weesu <coughs> da koy tegtale ne kon maanaam ak teqantal bi nga xamante ne moom lañ ci defoon wallahu alam xadis bi ñëw na xadis euh, numéro 1091 euh, ak 1106 daañu ko indiwaat xadis numéro 1805 ak 3000 imaam muslim <coughs> indi na ko ñeenti yoon xadis 703 imaam abu daawuda indi na ko xadis numéro 1207 1212 ak 1217 imaam at-tirmidhi indi na ko xadis numéro 555 imaam an indi na ko xadis numéro 591 592 595 596 598 599 ak 600 imam Malik rahimahullahu taala nag xadis numéro 384 moom Ahmad lu bari la indi maanaam dañuy gis ne kon waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu al imam Ibnu majah rahimallahu al-jamii ma qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathana Isxaaq te moom mooy Isxaaq ibnu Mansour al-Kawsaj rahimahullahu taala Abu Yaqub maanaam moom haddathana abdou samad te moom mooy ibnu abdul waris ibnu said ibnu zakwan at-tamimi muy abu sahl rahimahullahu taala tamit di waa basara ba tey rahimahullahu taala amma isaaq al-kawsaj kooku waaw naysaabuur la rahimahullahu taala waa marwazi la summa naysaabuuri mu ne qaala moom kon mu ne qaala xaddasanaa abdou samad mooy ibnu abdul waris mu ne qaala xaddasanaa حرب من حرب الشداد اليشكري من ابو الخطاب رحمه الله تعالى ديوا بصره وتي رحمه الله تعالى من قال حدثنا يحيى موم ابن ابي كثير يحيى ابن ابي كثير ديوا بصره تامت بتي رحمه الله تعالى من قال حدثني حفص بن عبيد الله ابن انس ابن مالك الانصاري مانام ديوا بصره مانام دي سيدنا انس ابن مالك radiyallahu taala anhu anna anasan naka sayyidna anas ibnu malik radiyallahu anhu haddasahu moo ko nettali anna rasulallahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yajma'u doon boole bayna haatayni diggante ñaari yi assalaatayni julli yi fi safar ci tukki maanaam daan na boole ñaari julli yi ci tukki yaani mi ngi ci namm nag almaghriba julli timis wala ishaa ak <coughs> xadis bi imaam al buxaari raximahullahu taala imaam al buxaari raximahullahu taala fii la ko indi naka noonu waa asxaabu kutubu sitta moom rek moom moo ko indi naka noonu imaam ahmad ibn hanbal moom indi na ko xadis numéro 12408 kon bokk na ci xadis yi nga xam ne moom la sayyidna moom la imaam al buxaari raximahullah wéetoo wallif imaam muslim raxmatullahi ala al jamii mu ne baabon bunte ngi ni wax ne yu axiru zuhra ila al asri thumma irtahala qabla an taziga shamsu mu ne baabun bunte ngi nii boo xamante ne dafay leeral mu ne yu axiru dafay yéexee maanaam ne aju tukki gi mën naa yéexee ak zuhra tisbaar ila al asri ba ca tàkkusaan sum iza irtahala bu fekkente ne laxas na qabla lu jiitu an taziga ci muy jéng ak shamsu jant bi maanaam fu fekkente ne laataa jant bi di jéng li nga xamante ne moom la bu fekkente ne dafa laxas laacaa gant bi di jeng maanaam mooy bu fekkente ne tisbaar jotagul loolu rek lañ ciy teg day tekke maanaam bu tisbaar jotagul mu daal di dem kont daal di tàmbali julleem daa daal di tàmbali tukkeem bu boobaa li nga xamante ne noonu lay def moom mooy day euh, mën naa daal di boole maanaam mën naa daal di yéexee tisbaar bi ba ca tàkkusaan ba ca tàkkusaan nga muy jamoo xiir loolu dana mën a nekk kon euh, li nga xam <coughs> te kon dañuy gis ne tukki manam man na tax ñu wañi ñu boole ñu boole julli mu ne fi ibn abbas a nek na ci amna hadith xadis abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma an nabi bu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manam lolu sayidna abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma mom wax nako ci hadith boo xamante ne euh, euh, moo dafa dafa da maanaam boo xamante ne daf koy daf ko ci leeral xadis boobu nag nekkul ci saxe imam al buxaari rahimahullahu taala imam ad-daaraqutni nag soloo na ko rahimahullahu taala euh, te te yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu mooy xadis yi nga xamante ne moom la moom moo tegu maanaam moom lay indi fii nag ngir dëgëral ko mooy xadis sayyidina anas bi رضي الله تعالى عن من قال بالاسناد المتصل في اول كتاب لي حدثنا حسان الواسطي تمموي ابو علي حسان ابن عبد الله بن سهل الكندي رحمه الله تعالى ديوا مصر موم ميغي ген ادنا 222 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم موم مصر لا غني ادنا فوفو تاميت لا رحمه الله تعالى من قال حدثنا المفضل ابن فضاله te moom mooy abu muawiya al misri rahimahullah taala nekkoon qaadi rahmatullah alayhi mu ne an uqayl te moom mooy ibnu xaalid ibnu aqil al ayli rahimahullahu taala daakantaram nekkoon abu xaalid di waa misra an ibnu shihabin muy as zuhri rahimahullahu taala mu muhammad ibnu muslim ibnu shihab an anas ibnu malik radiallahu taala anhu muy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kaana nekkoon na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam isartaxala su daan laxas qabla lu jiitu an taziga ci muy jéng ash-shams jant bi axara dafa yéexee az-zuhra tisbaar yi ilaa waqtil asri ba ca waxtu yi tàkkusaan maanaam kon bu fekkente ne dafa laxas maanaam dafa départ fi muy jul fi muy deme maanaam fi muy tukkee laataa jant bi di jéng masalan tey ñu daal di jàpp ne 11 heures la départ maanaam dem maanaam bu demee <coughs> ni mu daan def loolu muy sunnaam maanaam daanul wàcc di julli tisbaar ak tàkkusaan jam u taqdim moom loolu nekkutoon sunnaam lan moo nekkoon sunnaam mooy bu dee loolu la mooy lay wane kon ci biir ñaar yooyu bi gën mooy bi yeneen bi daan def sallallahu alayhi wa sallam mooy jamu taxiir loolu moom mooy maanaawu euh, buntu yi waaye su fekkoon te euh, maanaam ginnaaw bi nga xamante ne xam nañ ni boole geeg yooyu yëpp mën naa ne waaye fii imam al-Bukhari rahimahullah dafay indi bunt bii ak buntu bi ci tegu ngir wane lan moo nekkoon sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne nag daf daan kon tàmbali tisbaar maanaam da daan départ euh, fekk laataa tisbaar a jot daf daan yéexee tisbaar bi maanaam ba mu dem ba ca tàkkusaan waaye loolu comme niñ ko waxe woon faaw mu nekk loo xamante ne dañ koy yéene waale maanaam bu boobaa mu daal di dem ba ca tàkkusaan ba mu daal di julli li nga xamante ne moom mooy Euh, ah, kon mu ne axara zuhra da daan yéexe tisbaar bi ilaa waqtil asr ba ca waxtu tàkkusaan bi summa topp yaj maa mu daal di dajale baynahuma seen diggante wa iza zaaxat nag salla maanaam euh, dafay daal di euh, julli ak zuhra tisbaar topp rakki ba muy doo ko war maanaam kon day daal di julli tisbaar ba noppi doog a nag dem loolu moom mooy li nga xam ne moom la baax daan baaxoo di ko def donte leneen li man naa ne maanaam donte génn ba pare julli bu boobaa nag bu fekkente ne da ngaa génn laa fekk tisbaar jot na bu boobaa jam u taqdiim ngay def maanaam doo def jam u taxiir maanaam euh, loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam fi nga xamante ne foofu la jam u taqi ta taq taxiir mën a nekkee mooy su fekkente ne jant bi euh, jéngagutoon maanaam tisbaar waxtuy tisbaar duggagutoon waaye su waxtu tisbaar xësi ba dugg ngay doog a dëkk bi bu boobaa jam u taqdiim ngay daal di def loolu lu mata bàyyi xel la naka noonu diggante timis ak gee kon loolu moom mooy li nga xamante ne beneen bi ci des mooy lii day daal di nekk dalil bu leer boo xamante ne day dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahmatullah alayhim ci ne boole ci tukki loolu day am maanaam lu bokkul ak li nga xamante ne comme maanaam mu wuuteeg li xanafiya yi wax rahmatullah alayhim boole ci tukki day daal di mën a ne maanaam am maa nag bu ñu jaawale masala bi ak masala yi wàññi gi ba tey maanaam mën ngaa génn ba pare boo xësee ba génn dëkk bi nga doog a wàññi fekk sax tisbaar fekkoon na la ci dëkk bi loolu bokkul ak ak boole bi maanaam ñaari masala la yoo xamante ne bokkuñu oui parce que loolu daf koo def dafa ne su fekkente ne jant bi jéng na ba noppi mm-hmm. muy doog a départ day julli tisbaar ko a départ voilà mm-hmm. loolu la. no li maanaam li lii beneen masala la maanaam bu fekkente ne dafay julli tisbaar maanaam tisbaar da ko fekk ci dëkk bi day julli tisbaar ba noppi doog a dem doog a commencé tukki maanaam jubluwuñ ci ne dafay. ah du boole bii paa dootul booleete. mais nag boole gi man na looloo tax bu fekkente ne nag léegi dafa départ parce que waxtu tisbaar mi ngi war war na maanaam euh, sabab bi sababu tisbaar mooy bu jant bi jéngee loolu mooy sabab bi waaye du war lu dul buñ demee ba nga xamante ne euh, la ca des maanaam tuuti la maanaam loolu loolu mat a bàyyi xel maanaam mooy waxtu wi charte kañ lay war ak kañ la dul war loolu waxoon nañ ko gisoon nañ ko biñ tollee ci waxtu yi maanaam loolu moom moo tax mën ngaa génn dooga a julli maanaam tisbaar jot na mais tisbaar jeexagul mën ngaa génn dëkk bi doog julli tisbaar bu boobaa nag da ngay boole ak moom ak tàkkusaan bi te comme ci tukki la la fekk te waragula woon laataa ngay génn dëkk bi ngir ne mi ngi lay war lu dul jant maanaam waxtu wi ci boppam waxtu muxtaar wi deseetu la lu dul li nga ci mën a jullee benn ràkkaa bu mat mm-hmm. foofu rek la lay ware segam foofu la lay ware lay nekkee lu war moo tax mën ngaa daal di génn dëkk bi boo génnee dëkk bi léegi yaa ngi ci biir tukki léegi nag mën ngaa daal di wàññi voilà mais nag li nga dul mën moom mooy génn dëkk bi ba pare fekk waxtu wi jot jot jot na bi ngay nekk ci biir dëkk bi ba pare nga bëgg koo boole ba pare bëgg koo def waxtu tàkkusaan foofu la problème bi di mën a nekkee mhm. dégg nga xadis euh, bi <coughs> imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro 1106 moom la indiwaat fii ci kanam xadis numéro 1112 imaam al muslim indi na ko xadis numéro 704 ñaari yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1218 imaam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 586 ak 594. imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 12525 ak 13584 ak 13799. man day gis ne waa asxaabu kutubu sitta indi nañ ko ba mu des imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja rahmatullahi mu ne baabun izaa irtahala ba'da maa zaaghati shamsu salla zuhra thumma rakib lii mooy xar masala yi ñu doon gis léegi maanaam imaam al-Bukhari rahimahullahu taala di ci leeral masala bi nga xamante ne moom la maanaam li ñu doon wax léegi ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom moo nekkoon sunnaam mune ne izar taxala lahase laxasee ma gannaaw ba nga xamantene ne zaaxat jéng na jant bi salla dafay daal di julli ak zuhra timis te day julli tisbaar summa topp rakiba mu doga war doga doga doog a dem maanaam loolu lay daal def mune ne loolu lii moom moo tax fuqahaaw rahmatullah alayhi def ko charte ñom ci ñoom ñu def ko charte ci ñu mën a boole maanaam ngir ñu mën a boole il faut que nit ki génn laataa tisbaar gi di jot maanaam laataa jant bi maanaam ci charte yooyu lañ koy defee naka noonu ci diggante timis ak gee ci charte koy defee waaye gisoon nañu xadis Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu ne da daan génn fekk timis jot na pourtant mais dafa yàkkamti mu génn après mu boole ko gee bi loolu gis nañ ni doon na ko def kon loolu yëpp day tegtale ne euh, li nga xam ne moom mooy li gën dëgër rek mooy mazhabu Shafi'i xanaa bi lay rahmatullah alayhi moy li nga xamante wutulun charte sart yooyu deng dégg nga mu bil isnad muttasil fi awal kitab li hadathana Qutayba te mom moy ibnu Sa'id al bukhlani rahimahullahu ta'ala Abu Raja al bulkhi qala hadathana al-Mufaddal bin Fudala wa khon nango legan wa qail مهمنا خالد بن عقيل الايلاني عن ابن شهاب بن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان نكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل سوران لحس قبل لجيت ان تزيغت مي جنغ الشمس جنتبه اخر دلال يخ الظهر التسبار الى وقت العصر بتي وقت تاكسان ثم تاك نزل مداد وات فجمع مداد بول بينهما سين ديغنت فان زاغت سو جنغ نك الشمس جنتبه قبل لو جيتو ان يرتحينا تي موي لخص صلى الله في جل الظهر تسبا ثم راكبا توك مو دادي ور لخص لولو غيسون نانكو لغي غيس نان ا واو غيس نان حديث بي لغي غيسون نان ني تاميت ني امام البخاري اندي ون نك حديث نمبر 1106 اد 1111 في موي فيغا خامتيني في لنجكو موجي غيس ان شاء الله تعالى تي تير بي بي تاميت بوك نك حديث يغا خامتيني روم نانكو جيرنا لخص نانكو دوت نكو غيساتي ان شاء الله taala mu a baabu salaatul qaa'id léegi nag imaam al-Buxaari rahimahullahu taala ginnaaw bi mu indee wàllu boole gi ak li ñu ñàkk boole gi léegi nag mu daal di indi masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñi nga xam ne dañoo amee ngànt maanaam borom azar yi maanaam mooy mooy salaatu ahlil azar maanaam jullit borom ngànt yi dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom ngànt yi bokk na ci ñi nga xamante ne dañoo feebar maanaam te feebar gi boobaa dafay aju ci ay mbir maanaam bokk na ci masalan ki nga xamante ne dafa amee feebar boo xamante ne euh, euh, jëmm ji maanaam li li ko def benn ponk ci julli gi moom mooy jëmm ji ci boppam maanaam ci jëmmi mbir mi la ne masalan ki nga xamante ne masalan mënta taxaw loolu moom moo tax maanaam kooku julleem day daal di <coughs> toog wala ki nga xamante ne mënta ko kooku manam du def lo loola manam loolu la dul def ci jëmmi bopam nan koy defé wala man ta sujjóot wala bok man ta tok waye man na taxaw manam loolu yëpp manam bu fekkenti ni jëmmi mbir mi la loolu bu boba dañ ko koy woyofalal waye lu ëpp nak ñi nga xamantene ñom la mbir yooyu di dal ñom faat ak tok lañuy man wala bok tëdd comme ni nga xamne non la yenente bi waxe won sallallahu alayhi wa sallam sayyidina imran ibn husayn radiyallahu taala anhuma ne ko salli qaa'idan fa in lam tastati fa qaa'idan fa in lam tastati fa jan janbin maanaam comme ni nga xamante ne euh, loolu dinañ ko gisaat ci beneen riwaaya euh, nga xamante ne noonu la ñu noonu lañ ko gisee maam dinañ ko gën a gisaat fii ci beneen riwaaya insha allahu taala ci xadis beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy masala yii nii ba tey bokk na ci comme ñi nga xamante ne dañoo ragal maanaam nekk ci tiitaange gu maanaam moom mooy lan mooy insécurité nga xamante ne tey bu ñu jugee wala bu ñu lu maanaam bu ñu dee taxaw bu ñu taxawee julli maanaam bu ñu leen noon bi gisee wala boog yu mel noonu dañ maanaam musiba moo leen di dal bu boobaa dañuy daal di julli toog wala boog ñu julli ni nga xamante ne noonu la ma ne naka noonu tamit ni nga xamante ne dañoo amee salas te masalan tey bu fekkente ne dañuy nit ñi bu ñu taxawee julli maanaam wala boog maanaam bu boobaa salas gi day daal di maanaam day génn maanaam mbéewal gi day génn wala yu mel noonu bu boobaa bu ñu toogee te du génn bu boobaa dañuy daal di toog julli maanaam ak yu mel noonu am maa ñi nga xamante ne masalante yenn xeetu wala rek yu mel noonu yooyu <coughs> ñépp ñu nekk ci cas de figure yu mel nii ñooñu bu boobaa duñu daal di eh, dañuy daal di eh, julli ci xaal bi nga xamante ne moom la ñu man beneen ngir ne julli dafa nekk loo xamante ne dañ koo wutal waxtu te waxtu woo war te génn te defoo ko beneen cas de figure bi nga xamante ne nag moom moo mën a am ci masalan ki feebar moom mooy ki nga xamante ne masalan cër bi feebar loolu dafa wuute maanaam ci cas de figure yi ma la wax yépp borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne rahmatullah alam ci ne nit ki day toog mën na toog julli waaye cas de bi nga xamante ne foofu la ñu wuutee mooy masalan tey bu fekkente ne li feebar ci nit ki maanaam du jëmmi cër gi maanaam su fekkonte ne dañ ñu ko masalan ah yow de maanaam comme comme ne ko cir sàngam boo boo dee taxaw julli maanaam julli gi wala boo too boo taxawee julli wala ngay rokoo wala ngay sujjóot maanaam comme nin koy war a defee bu boobaa li muy indi ci yow li muy jur ci yow mooy sa feebar gi dana yokk wala sa feebar bi dana yéex a faju wala boog sa feebar gi eh, eh, wala boog dana la jural feebar maanaam wala boog sax dana la jural feebar bu bees maanaam loolu yëpp wala boog mu nekk loo xamante ne day da nga dem ba laaj ci feebar gi maanaam loolu yëpp su fekkonte ne yooyu la euh, te ab e, docteur jullit wax ko ko <coughs> loolu bu boobaa dana mën a nekk maanaam da ba tey dañ koy may mu bàyyi position boobu <coughs> di junj wala yu mel noonu loolu borom xam-xam yëpp d'accord nañ fi ñu wuutee nag moom mooy tey su fekkente ni dafa war a toog maanaam masalan tey. Euh, Euh, li feebar ci moom moom mooy nopp yi wala bët yi wala mel noonu xam nga loolu ci jëmmi boppam du ko tere taxaw du ko tere euh, rukkoo wala sujjóot wala mel noonu waaye dañ koo xamal ne ko loolu soo ko dee def day tax sa feebar bi du wér wala boog du gaaw a wér bu boobaa li nga xamante ne noonu lay def bu boobaa boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur ulama ci xanafi yi ak maaliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne ba tey kooku dañ ko koy woy falal maanaam ba tey kooku dañ ko koy falal amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shaafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne déedéet kenn du ko ko woyofalal ngir nag xadis Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne dafa amee woon feebaru bët ndox a duggoon ci bët yi mooy ne comme ni mu doon euh, euh, jàppoo maanaam da doon jàpp buy buy raxas xar kanam gi dana raxasaali bët yi maanaam ndox mi nag dugg ci bët yi ah, indil ko feebar ba ko indilee feebar nag loolu docteur bi ko ah yow day li nga mën mom moy julli bu léegi boy julli da ngay da ngay tëdd manam da ngay da ngay ah, da ngay ah, def yum ah, wala bok da ngay jaxal plutôt da ngay jaxal manam non rek nga mala def boko defé jurem ñaari fan wala ñetti fan nga daal di wér waaye loolu moom mu ne de manam mu dem laaj ko sayyid sayyid aisha ak sayyid Ummu Salama radiyallahu anha ñu ne ko déedéet do do ko def manam mu daal di continuer noonu ko indi sax silmaxam gi manam lolu Euh, bi mu bi mbir mi demee noonu ñu ne kon Shaafi'i rahmatullah am ne déedéet kon kenn du ko ko jéggal waaye nag li nga xamante ne moom la jumhur di tontu rahmatullah alayhi mooy ne ah, ah mbir mi demeewut noonu ni mu demee mooy ne loolu moom daf koo def ngir rek ne sàmm la maanaam ngir sàmm la mm-hmm. waaye tegtalewul ne euh, maanaam dafa nekkoon lu war ci moom maanaam dafa ko def rek ngir sàmm waaye nekkutoon loo xamante ne lu war ci moom la loolu tamit <coughs> am na. yeneen i teqantal yoo xamante ne jotoon nañ koo gis ne li nga xamante ne moom mooy jumhurul ulama bu ñu jëlee globalement li nga xamante ne moom mooy ne dañuy julli taxaw suñu julli taxaw suñ ko mënu ñu julli toog soo ko mënu nga julli <coughs> wengalu maanaam wengalu maanaam moom moo gën <coughs> moo gën jaaxaan bi te jaaxaan bi tamit moo gën dëfeenu bi maanaam jaaxaan bi moo gën dëfeenu bi maanaam moom mooy bu dee bu dee masalan te euh, ñi ba mu des ci xanaf yooyu xanaf yooyu rahmatullah alayhim li nga xamante ne ñoom moom lañ gën a le moom mooy jaaxaan gi lañ gën a le que jéng gi waaye ñoom bu boobaa li nga xam ne noonu la ñuy def maanaam mooy boo jaaxaanee da ngay daal di jublu xibla waaye ñoom dañuy bëgg nga jël lu demee nekkee njegenaay teg ko ci kaw bopp bi bu ko defee bopp bi mën a yëkkati ko tuuti maanaam nga xam ne xar kanam gi day xaw a jàkkaarloo xibla maanaam boobaa ñoom noonu lañ koy defee am na ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur maanaam si Shaafi'i xanaa bi lay rahmatullah alayhim xattaa ci Maalik yi rahmatullah alayhim li ñu gën a la moom mooy ndeyjoor gi ci càmmoñ gi maanaam nit ki ju tëddee ndeyjoor doog a tëddee li nga xamante ne moom mooy euh, càmmoñ amma yi nga xamante ne teqantal yeneen yi ci des jotoon nañ ko gis walillahi alhamdu wal minna <coughs> mu ne qaala mu ne baabu fii mu doog a indi julli bu bu njëkk bi mooy salaatul qaa'id <coughs> buntu julli ki nga xamante ne mooy aji jekki ji maanaam mooy ki xamante ne dafa toog mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Qutaybata bnu Sa'iid te moom mooy gis nañu ko Abu Rajaa al mu ne an Maalik te moom mooy imaamu daaru hijra Maalik ibnu Anas ibnu Maalik ah, ibnu Abi Aamir al-Himyari rahimahullahu taala an Hishaam ibnu Urwa mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwaam an abiihi mu jëlee ci baayam Urwa ibnu Zubayr ibnu al-Awwaam an Aysata ummul mu'miniin radiyallahu taala anha maanaam càllale gi gis nañ ko gisati ko gisati ko adnaha qaalat neka nag moom na salla julli na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii bayte ci këram woo fekk moom shaakin aji jàmbat la fa salla mu maanaam mooy dafa feebar fa sallaa mu daal di julli jaalisan di aji toog wa sallaa mu daal di julli waraahu ci ginnaawam qawmun ay nit qiyaaman di aji taxaw fa ashaara mu daal di junj ilayhim ci ñoom maanaam junj leen ni ana suuni toog leen fa lamma ba nga xamante ne im sarafa noppi na ci julli ko xaala mu ne inna maa li am ba des mooy maam gisoon nañ ni euh, lii maanaam mooy ba mu feebaree loolu lii moo nekkoon xaalam waaye ginnaaw gi euh, maanaam gis na ñi maanaam lii feebaram maam ci biir gi la bokkut li nga xamante ne moom mooy bi mu mujjantalu dundam maanaam bi nga xam ne moom la noppi xaala ci la waxee ne inna maa li am ba des mooy joxela dañoo def al imaamu imaam bi lii tam ma ngir ñu mën a roye bii ci moom maanaam liñ ci nam moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme que dafa maanaam eh, eh, eh, feebaram loolu moom moo tax mu daal di taxaw mu daal di toog julli loolu moom mooy lii nga xam ne moom lañ ci nam indi na innama bi am ba des mooy a joxe la def li am ba des mooy joxe la def na defef na al imaam imaam bi maanaam imaam bi daal dañ ko fee def lii tam ma ngir ñu mën a royee bi xii ci moom fa iza raka su rukoo farkaw rukoo leen wa iza rafa su yëkkitiku farfaw na ngeen yëkkitiku kon loolu euh, maanaam li ñu ci namm kon moom mooy li tax imam al Buxaari rahimahullah indi ko moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na te toog waaw kay loolu rek <coughs> loolu lay saxal ne mën naa ne boroom xam-xam yëpp rahmatullah kon ci julli ki nga xamante ne <coughs> dafay julli julli farata loolu moom ànd nañ ci amma julli naafi loolu daan ci ñëwaat daan daan ci ñëw insha allahu taala léegi xadis bi imaam al Buxaari indi woon na ko xadis numéro 688 dana ko indiwaat 1236 ak 5658 imaam Muslim indi na ko xadis numéro 412 imaam Abu Daawud indi na ko xadis numéro imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1237 imaam Maalik indi na ko xadis numéro 359 maanaam mooy euh, ci moom la ko imaam al Buxaari jëli ko ci Qutayba ibn Saïd ci euh, rahimahullahu taala ci moom mi euh, imaam Ahmad ibn Hanbal vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-seize vingt-cinq mille cent quarante-neuf ak vingt-cinq mille six cent dix-huit kon dañ gis ne waa saabu kutubu si tënji ko ci indi mooy imaam Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawud imaam Ibn Maaja amma imaam An-Nasaa'i imaam At-Tirmidhi ñoom indi wuñ ko rahimallahu al-jamii' من وقال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا أبو نعيم تمام الإمام الفضل بن دوكين من قال حدثنا ابن عيينة تمام سفيان ابن عيينة آه، نعم عن الزهري مي الإمام محمد بن مسلم بن شعبة الزهري عن ابن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أن أنه قال من سقط ردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس تي آه، فس فخودشة ما نم مدادي آه، خوريكو ما نم مدادي دق ما نم ممي أو أو <coughs> فجوحشة ما نم مدادي خوتك ما نم والوم دي جورجي شقه موي والوم الأيمن bu ndeyjoor bi moom moo xar maanaam moo moo dagg loolu moom mooy lii lii sayyidat Aïcha di wax radiyallahu taala anha mu ne fa daxal naa ñu daal dugg alayhi ci moom nauduhu ñu di ko seet si nee na fa xadarat mu daal di maam lool tamit day teg te maanaam ngëneelu fekk seeti ji ku feebar mu ne biñ ko seetee fa xadarat mu daal di teew assalaatu julli fa solla mu daal di julli moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaa'idan di aji toog fa sollay naa ñu daal di julli ñun tamit qu'udan di aji toog waaye comme ñu ko gise woon ne wàll gi lii dañ koo folli loolu jotoon nañ ko gis masala bi ak li nga xam ne moo ci aji woon ci ay teqantal jotoon nañ ko gis ci bi ñu tollee ci euh, ci wàllu imaama ci kitaabul azan walillahi woon wal minna muné ne wa qaala mu dadi wax ne inna ma dambu ba des mooy joxe la defeef na al imaam imaam bi maanaam waaye li saxal rek moy ni julli tok gi man na ne ci ki nga xamantene mom mo dafa amé ngànt manam inna ma dambu ba des mooy joxe la defeef na al imaam bi di yu tam di yu tam ngir ñu mën roye bi ci mom fa iza kabbara su kabbare fa kabbiru ku kabbar wa iza raka su rukoye farfa farka rukoo leen wa iza rafa su ko farfa farfaw yëkkati ku leen wa iza qala bo xé sami allah liman hamida waa sami allah liman hamida fa qulu na ngeen wax rabbana walakal hamd maanaam muy riwaya muy wax rabbana walakal hamd waxoon nañ nagn am na rabbana lakal hamd allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana wa lakal hamd ak rabbana lakal hamd manam yeb amna am na ci riwaaya di hadith bi imaam bukhari ko indi woon nag xadis numéro 378 689 732 733 ak 805 bii mooy fii mooy tamit place biñ koy mujjee gis saxeex bi tamit moom tamit tënk nañ ko romb nañ ko alhamdulilah jeex na dootuñu ko gisati insha allah taala imam muslim in ko xadis numéro 411 imam abu dawud in na ko xadis numéro 601 imam at-tirmidhi in na ko xadis numéro 361 imam an-nasai in imam ibn majah in ko xadis numéro 876 ak 1238 imam Malik indi woon na ko xadis numéro 358 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 12074 12652 ak 12656 kon dañu waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al-jamii mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Ishaq ibn Mansur te moom mooy al-Kawsaj qaala axbarana Rawh ibn Ubaada te moom mooy al-Qaysi Abu Muhammad wala أبو عباد البصري رحمه الله تعالى من قال أخبرنا آه، حسين تمام ابن زكوان المعلم بيغا خامتني موم لنجي سوت سن جوتا عن عبد الله ابن بريدة تمام ابن الحسين الاسلمي موي دوم تي سيدنا بريدة بن الحسين الاسلمي رضي الله تعالى عن صحابه باك ابو سهل الاسلمي المروزي قاضي رحمه الله تعالى نوا بصره ginnaaw ba mu nekkee waa Marwa maanaam an Imran ibn Husayn radiyallahu taala anhuma muy Abu Najib al-Khuzai di waa eh, Basara rahimahullah radiyallahu taala anhu génn àdduna di saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba bu baax boobu radiyallahu anhu gisul nañ ko tamit annahu naka moom saala laaj na nabiyallahi ndawal yàlla li maanaam sa eh, yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa mu ne wa axbarana Ishaq ba tey moom mooy alkawsat an abd ah, qaala axbarana abdu samad mooy ibnu abdul waaris gis nañ ko léegi noonu qaala samitu abi mooy abdul waaris boobu euh, muy bàyyam muy abdul waaris ibnu said ibnu zakwan attamimi mu ne qaala haddasana alxuseyn te moom almuallim an abi burayda te moom mooy ibnu burayda maanaam mooy lu jub waaye dafa ne abu burayda maanaam kooku ak njuumte la euh, comme euh, ni nga xamante ne Eh, noonu la nekkee ci nusxatul yunaaniya voilà maanaam mu ne qaala xaddasani imran ibnu xusayn radiallahu taala anhu wa kaana mabsuuran ah, eh, maanaam mooy dafa nekkoon koo xam ne dafa amoon baasuur maanaam mooy mabsuur mooy ko amoon baasuur baasuur mooy jàngoroy kajoor jàngoroy kajoor nag mooy hémorroïde ci tubaab maanaam noonu la qaala mu ne saaltu laaj naa rasulullah yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ci julli waaye goo xam ne qaayidam dafay toog maanaam kuy julli toog jékki ngir ne jàngoroy kajoor gi day tax eh, muy maanaam eh, deret ji day tuuru comme deret ji day tuuru mu war ko mën a téye lool moom moo tax ki am salas naka noonu ki nga xam ne mustaxaadal su fekkente ne deret ji day tuuru te bu toogee deret ji du tuuru bu boobaa du taxaw julli maanaam loolu maanaam la euh, lay leeral fi mu ne fa qaala mu ne in salla su ju su jullee qaa'iman aji taxaw fa huwa loolu de afdalu moo gën wa man salla ku julli nag qaa'idan di aji toog jekki fa lahu kooku ñeel na ko nisfu ajril nisfu génn wàllu ajril qaa'imi payu ki nga xam ne mooy aji taxaw wa man maanaam lii nag li mu ci namm moom mooy kii di naafila mm-hmm. maanaam kon borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci ki nga xamante ne moom mooy julli farata tekkantel yi ñu ci wax mooy yi ñu la waxoon léegi amma julli naafila ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne nit ki mën na koo def su fekkente ne dafa toog waaye nag fii day tegtale ne ki nga xamante ne moom mooy ki julli toog dafa am ngën maanaam payu genn wàllu ki nga xamante ne dafa julli laan taxawu waman képp koo xam ne salla dafa julli naa iman bi aju yi tëdd maanaam loolu lay tekki maanaam tegtalewul ne nelaw falafoo ñeel na ko nës foofu payu ajrul qaa'id fay maanaam genn wàllu maanaam nës fu genn wàllu ajrul qaa'id payug aji je aji jékki ji maanaam kon loolu day tegtale ne ki nga xamante ne dafa tëdd maanaam moom pay gi nga xam ne moom lay am mooy genn wàllu aju payug ki nga xamante ne dafa tëdd maanaam kon ki nga xamante ne dafa dafa maam lii nag julli naafila moom moo tax ñuy wax maanaam kon ngir ne lan lan moo tax maanaam ngir ne julli fara comme que julli dafa am maanaam euh, naafila dafa bëri maanaam nit ki mën na koo def saa yu ko neexee bu fekkoon te kenn du ko tënkal ci charte yu bari yi nga xam ne moom la ñuy tënkal farata loolu moom moo tax ñu mën koo def masalan ci kaw euh, fas yi wala ci kaw waruwaay yi su fekkente ne nit ki day tukki naka noonu su fekkente ne fii tamit noonu lay demee maanaam loolu moom moo tax. ñu mën ko koo wàññil mm. falal ko ko ngir sawar loo ko itam ci naafila maanaam bu fekkente ne dafa mën a toog loolu moom moo tax nit ki mën nay naafila toog waaye na ko leer ni pay genn wàllu bu fekkonte ne dafa taxaw la comme ni nga xam ne noonu la sayyidat Aisha radiyallahu anha noonu la ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu nekkee ci Sahih Imam Muslim rahimahullah sawaabuki ala qadari nasabuki sa coo sa pay dafay askan noonte ak sa coono maanaam loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo ki nga xam ne moom mooy di taxaw ki toog genn wàllu coonoom la def tëdd nag moom moo gën a féexati maanaam moo tax ñoom ñii duñu bokk li nga xamante ne moom mooy ak pay loolu tamit day tegtale ne ki nga xamante ne moom mooy euh, mooy naafila yi sartaluñ ci maanaam taxaw taxaw euh, dégg nga xadis bi imam al Buxaari euh, dana ko indiwaat xadis numéro 1116 Euh, imam Abu Dawud indi na ko <coughs> xadis numéro 951 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 371 imam mi nasai indi na ko xadis numéro 1660 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1231 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 19894 19899 19974 ak 19983 dañuy gis ne kon xadis bi waa saxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam Muslim